léegi loolu lañ fi gis ña nga ne di doxi seen i soxla. jàpp mais man pataaral bi C221 am ci événement politique yi en tant que mouvement société civile. loolu tamit parce que gis nga mouvement yi li mouvement bi sax li tax mu suspendre ay ay ah, action yi passé xam nga lu tax. bu bu defaa tool beneen conférence de presse ñu ne non élection yi la dañuy campagne. Hmm. moo tax gisee bañ ne bëreet def kii boobu mu am. toole xam ne gendarmerie police ak euh, palais ñëpp doon ko seetaan. ngeen yëngal réew ñëpp teg ci bët. ba ñoom sëriñ ñi. mais moom mais Mouhamed xaaral xaaral ngeer mi est-ce xam na li muy ma may ko mu daal après nga rebondir foofu. ba ñoom ñëpp ci kurmut ba ah. kilifa jaral ko sax mu jël téléphone di woo Yérim di ko saaga ay yooni yoon. kilifa man. bu Y'en a marre borom visa yi. Hmm. kon xam nga ni affaire yi am na effet. affaire bi nag mu neex leen day dem. Hmm. mu naqari leen day dem ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. allez-y sëriñ loo bëggoon rebondir foofu. dama ne hmm. <laughs> yow contexte bi ñu gën a soxloo soxlaa. mouvement société civile yi. ngeen yéen contexte boobu ngeen di toog. période électorale bàyyi ba élection yi jàll. waaw xam nga loolu c' est pas cohérent. c' pas objectif quand laaj ko ko pourquoi. yow hmm. société civile bi ñëpp ngi génn. Hmm. ku si nekk yaay naqarlu violence bi si am. yéen ngeen ne da ngeen di seen bàyyi ba élection yi jàll xam nga nag sa waay loolu nag wax dëgg yàlla yéen wut maanaa. Hmm. mooy li ma la wax ñoom association anti Sonko la. ñu bañ ko ak ñu nangu ko loolu mooy dëgg. mafia la rek. benn groupe la boo xamante ni c'est des mécontents. Hmm. ay mécontents lañ parce que mosuñu njort ci seen avenir ni Pastef dina accéder au pouvoir. dina accéder tey ki ñu jàppee ni mooy seen chef. yaa ngi de ça ba toog ci plateau ba keroog. Hmm. ci seen kii booba. ne ne moom mooy le chef. <laughs> moom mooy le chef. <laughs> du bouger. du bouger moom mooy le chef ka wax keroog. mooy ki njëkk a wane ak mbañeelam ak nooneelam. ci waa Pastef. mais est-ce que doo ko tuddee opposition bu radicale par rapport ak doxalinu waa Pastef que mu bañ a doon bañeel. waaw mais dama ne. Hmm. kii moom moo ne daa bañ Sonko. kon lu ma koy tuddee. Abu Ngeer mii toog. jàkkaarloog yow xam nga propos boobu mënu ko weddi. mais le chef mën na bañ a bañ Pastef mën na bañ a bañ Ousmane waaye dama ne la mën na radical non xam nga bañ bañ nit ki jarut nga koy wax. soxla soxlawul ngay wax nit ki dama la bañ de jëfal rek ni ñu xam xam xam sa position envers nit ki. Hmm. mais imaginons le les les les les jëfi Cheikh Yérim Seck envers ñii ba ñu nekkee opposition ba ni ñu accéder au pouvoir Cheikh Yérim Seck mii candidature Bassirou Diomaye fay Diomaye fay bi influence bu ne def na ko si pour mu mën a mu mën a bañ a mën a jàll hmm. te tëgg ko si yoon tëgg ko si xam-xam tëgg ko si loi tëgg ko si droit tëgg ko fen si ay waxu ma moo ma neex rek la ko doon waxee parce que Cheikh Yérim Seck quoi Colombus de dire aussi en matière de droit mu si xam-xam nag xam-xam bi sorewut xëy na peut-être loolu tam mën na nekk handicap bi. Hmm. tu as mais ña ca waxoon ñëpp tey amuñu gàcce. nee naa la mouvement bii mouvement politique la boo xamante ni. Mohamed. Hmm. lañ njort ni ñoom looloo tax ñu teg ko duñ ci am ndam. parce que nag temps bi daf leen dépassé parce que ñi mu dajale ñu bëree bari ñi ma gisoon ci seen kii boobu ñu toog mais ñu si bëree bari ban xam-xam la am du si politique. du ci économie du ci justice du ci relation internationale imaginez rek kat tet yi ñu fa gis yëpp xoolal bu baax. mais mën nañ nekk ay observateur comme. dama ne di xool li doxul doxul ñu koy wax. waaw mais xam nga xam nga xam nga li dox ak li hmm. pour nga koy mën a analyser objectivité ak cohérence moo koy def. mais objectivité dañ na si yow moment bi nga ne kay bañ diw danga war a àtte àtte bu équitable si diw moom nga ni dama ko bañ la daraam neexuma. lu mu def baaxul gisuma lu baaxam lu bon rek laa gis. Hmm. waaye nañ waxante dëgg waaye. alors de justement nañ waxante dëgg loolu du mouvement du mouvement société civile. Hmm. en tout cas ñii assumer société civile ñëpp. démb gis nga leen dégg nga leen tey ñu ngi fës ci ci kii bi ci euh, ci une yi boo dem fekk leen fa. ñoom mu Ndiaye Cissé ñoom ñëpp yaa ngi leen dégg ku si nag yaa ngi wax sa position ak ni nga gisee violence ak yooyu yëpp tey lu leen tere woon génn ne leen ñun suñu mouvement bi ñu ngi condamné violence yi ak fu mu mën a jugee. bu Sonko tooñee peut être contexte bi ak situation bi nga ne tël la ñu jàpp sa benn membre. mu am ay demale ak wax ji loolu gis nga. waaw mais violence jàpp xoolal. ko ku ko condamné te teg ko tuuma képp ku ko séddale dëgg ku ko xaaj naa fekk nga. gis nga violence yi. Hmm. dëgg ku ko xaaj naa fekk nga. dëgg kenn du ko xaaj. mais bu ñu xoolee fay ak déclaration au passé mën na jàpp ne ñoom rek ñooy subir attaque. déedéet kenn attaqué wu leen. Hmm. damaa dévier nit ñi ma ne la. presque une semaine maa ngi toog di laaj ay vidéo kenn Mouhamed lu ñu waroon def tey. Mouhamed vidéo du fi réer tey xam nga lu ñu waroon a def. Hmm. su fekkee société civile lañ woote ak cohérence ak objectivité. waay Ahmed waxu leen dëgg. Hmm. trompé na leen. ba si seen bonne fois ngeen jug di ko xeexal. Hmm. waa dem ngeen ba juge comme ne ngeen gëm ngeen justice réew mi. dem ngeen ba justice reconnaître ne coupable la li mu koy toppee moo ko def. waaye amaat leen humilité ak modestie ak respect ci sénégalais ngeen delluwaat toog fa ngeen toogoon ne da ngeen juumoon si nag li ngeen wax ni dañoo dem ci base de données ba service des mines rëccu fa euh, per même yow est que mu mën a est-ce que mesure nga propos yooyu. dem ba ci base de données ba mel ni jël mel ni Ahmed Ndoye représente aujourd'hui une très grande menace pour gars yi ba mu war leen jaral. ñu dem ci base de données ba service des mines. en tout cas parole yooyu taxal nañ toute une administration. police wala non ñoo taxal seen bopp. Cheikh Omar Talla toog fii ne moom dem na ba. ci ñu waxul ñu Cheikh Omar ñu ko base ne Ahmed amul permis. mais wëndëng supprimer quand hmm. bu neex mën nga ko ubbil base de données bi kon. ki la ko mën a ubbil kay mën na lu fa génn mën na koo génne. Hmm. Cheikh Omar leen taxal. ñoom ñii chaque jour ñooy takkal la administration bi. alors justement voilà marqué ngeen transition bi ñu wën nag boo xam ne mën nañu chaque jour. ñu ngay xool carte d'identité jàmbur rek passeport rek permis ñu <laughs> ko la ko ubbil kay mën na la koo tëjal alors ñu waxtaanee violence yi nga xam te ne jot na am foofu la ci Saint-Louis euh, personnes daal dinañ leen teg loxo euh, sa kàddu tous les leaders confondus bu ñu ko boolee seen i ay garde corps daanaka ñu ngi foofee ci Saint-Louis kon yi ma ngay bouger loolee tax na ba Ousmane Sonko démb ci déclaration mu jàpp ne peut-être mën nañu wàññiwaat fitna gi continuer seen i caravane ak seen i mbir parce que la mu doon xaar mooy yoon daal di def ay interpellation daal di teg loxo nit ñu mën a leeral peut-être song yi nga xam xamante ne daal dinay am donc loolee jur na en tout cas dégel euh, ci peut ñu doon séentu jàppante diggante waa Baobab ak coalition liste Pastef terewul Ousmane Sonko dem na ba yegg fi nga xam te moo di Baobab amal fa ab déclaration Abdou Nguer violence dem si guddi Baobab waay ban heure ci guddi gi seen caravane bi buntu kër Samba Dia loolu dëgg waaw mais ñu continuer ak. Euh, arrestation man moom heure bi ma fa génn. waa mais am na ay nitu Pastef yu fa dem. waaye guddi du dëgg de. waaw d'accord ak arrestation yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko 81 personnes 81 personnes lañ si jàpp. bi ñu defee tamit euh, fouille ci convoi wu sàmm sa kàddu fekk nañ fa aussi ay armes ak li nga xamante ne moo di ay lance-pierre ak yeneen ya ca aju euh, d'abord ban jàngat nga ciy def. waaw ci li ñu wax. Hmm. man gisuma fekkewuma bañ leen di fouiller. mais mais jël jël nañ si ñoom ay matériel quoi ay armes ak yeneen ma d' après sax bi ma bi bi ma defee samay recherche ak activé samay machine d' après information yi ay machine ah waaw <laughs> am nga fa ay éléments lay topp yàlla xam na ko ah, waaw information kay bu ñu ko fanaanee coow dinaa def lu tout am ci lu ma téye waxkat day gës waaw d' après hmm. information yi ma ci am booy ne dañ moo muñu dara booy ñoom foofu lañ taxaw. waaw dañoo weddi. waaw dañoo weddi ne moomuñu ko. kon kañ ngeen joxoñu benn information ah, loolu du information. ah dégg fekk na nee nañ moomuñu ko. ok ñenn ñi. Hmm. moomuñu ko. waay. weddiwuma tam police. ndax ñoom ñoo def seen opération. ñoom ñoo ko génne ñoo ko teg. <laughs> xaaral dootoo weddi police. <laughs> ñoom weddiwuma leen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen te man ba ma juddoo ba tey musuma tuumaal police fenal ngeen ma fii yëpp xoolal sëriñ sëriñ fenal ngeen ma fii yëpp ne man damaa tudd turu police ne dañoo retiré permis bi fenal ngeen ma fii yëpp xoolal vidéo bi keroog Samuel fii la toog une de temps mu ngi koy wër ci réseau yi bi ñu toogee fii di wax mënu koo gis waaw mënu koo gis parce que dama leen a